يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd mbokk yi waneeti na yoon ni mu ko baaxoo def ci réew mi waneeti na yoon ni mu ko baaxoo def ci Touba ca kanam waneeti na yoon ni mu ko baaxoo di def ci commission bu mag bi di commission sociale ci njiital Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah ak jàmbar yi nga xam ne ñoom landal Serigne Mountakha Mbacké ne social kat mooy taxawu néew ju doole yi te loolu war na kenn ku nekk ci ñun lu waay mën lu waay attan sëriñ bi yëkkati téeméeri barigo ceeb sëriñ bi yëkkateeti téeméeri barigo pepp ngir lan teg ko ci loxoy commission sociale ngir ñu jottali new néew ju doole yi. lii la sëriñ Mountakha defati de waaye jàmbaar yi nga xam ne naka jekk ci social rek lañ leen xamee. rawatina commission sociale bu Touba ca kanam fu mu jógee ñu jóg fu sëriñ Muntaxa joxe yoon ñu jaar ca kenn ngi nii ci jàmbaar yi di sëriñ fallu Galas Mané Mbacke Mbacke balaay seen nii rek la ko baaxoo di def moom it ñëw na ci commission sociale ak téeméeri saaku ceeb ak fukk ak benn téeméeri paqueti suukar ak fukk ak benn téeméeri paqueti tàndarma ak fukk ak benn lii la sëriñ Fallou Galas Mbacke def nga xam ne ci social rek lay yëngu rawatina bésu social bi ñuy amal ci weeru koor wu nekk. gis ngeen ne jamono ji ñu nekk ñu ngi ci ay recensement yu am solo ci social boobu nga xam ne ñu ngi koy waajal ci ramadan bi nga xam ne moom lañ dëngal euh, ñu gis sëñ Mountakha mu def ci taxawaay boo xam taxawaay bu am solo la. Euh, gis nañ ne kilifa yi tàmbali ñooy roy ci jëfi sëñ Mountakha googu nga xam ne def na ko euh, lii ngeen di gis sama ginnaaw mooy li nga xam ne Serigne Fall Galas Mané andi na ko. Euh, ginnaaw loolu nag ñuy fàttaliwaat bis bi nga xam ne ñu ngi ko war a def kër Sëñ Touba gi mu nekk le 24 avril ñu ci woo mbokki taalibe yëpp ñu xam ne bis boobu bis bu màgg la bis bu rëy la bis boo xam ne bisu ndimbalante la ci biir jaamu yàlla yi ci biir jaamu yàlla yi euh, ndax nag bu ngeen xoolee recensement yi nga xam ne def nañ ko ci biir quartier yi da nga xam ne euh, dëkk bi wax dëgg fa yàlla ñi fi nekk sonn nañ ci wàll wàllum dund te yaakaaruñu ci kenn ginnaaw bu Serigne Touba jàlle ñoo ngi Serigne Touba lañ ci yaakaar ngir ñu mën leen a jàppale kon nag ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp lépp loolu xam ne ni waaye am na ko mu nekk ceeb mu nekk suukar mu nekk tàndarma mu nekk xaalis ak lu mën a doon rek bu soobee yàlla ñu ngi koy xaar ci bis booba. kon mbokk yi yoon waa ngi nii de sëriñ Mountakha joxañati na mbokk yi yoon waa ngi nii de sëriñ bi newoon na man de gindiku naa kon sëriñ bi gindi ñu gindi nañu de ndax wane na aw yoon kon nii sëriñ bi def nii sëriñ Fallou Galas Mané Mbacke def nii jàmbaari sociale yi di def mbokk yi yoon waa ngi nii. néew ju doole yaa ngi nii de dañoo gentel seen dëkk ngir sëriñ bamba ñëw ci dëkk sëriñ bamba bi manqué lépp yittewoo lépp kon sëriñ bamba leen war a taxaw taalibe yi sëriñ bamba leen war a taxaw jërëjëf sëriñ muntaxa yàlla na fi yàgg ci ànd ak wér jërëjëfati sëriñ fàllu galas maane mbàkke waaye jaaraama commission sociale bu Touba ca kanam ak jàmbaar yi nga xam ne ñoom laa dal social bi moom mooy kenn ku ne boo bu njàggee nga def la man rek la nga bu pëstee ba sell yitte jëmat sëkk loo ca man loo ca man rek ca ca ca ca li nga xam ne yaa koy def te xam da nga ko dimbalee nga bëgg a dimbale miskin yi néeg ju doole yi ndax moom kon mooy social bi kon nag loolu moom ñi ko ñëpp dégg lu ca waay man na koy def bu mu xeeb bu mu yéem waaw bu mu xeeb bu mu yéem yaa latifu yaa karimu yaa jalil haamil